Ousmane Sonko ñu ngi ko topp pour mu def li jëm ci wàllum test ADN loolee mooy laaj bu ñu samp fan la test ADN boobu nar a jëm bu fekkente ne moom dañoo jël ab prélèvement ci ab deretam lan lañ koy doyee fan lañ koy yóbbu ak lan la leen boobu lépp deret di jariñ ci lu jëm ci wàllum test ADN booy def test ADN nag dafa am looy recherché soit benn paternité wala bokk benn conformité par rapport ak mbir moo xam ne yow da nga ciy am ay sikki sàkk loolee nag ba tey luñ ko sénégalais yi dañ ne rek kii di Ousmane Sonko na leen jox ab deretam ñu def ci benn test ADN Ousmane Sonko ne leen maa lànk ba tëdd ci naaj bi loolee itam sax ñi nga xam ne ñoo di leader yi nekk ci Pastef même chose la ñu wax bu fekkonte ne Ousmane Sonko sax daa dofoon ba leen di jox ab deretam ñoom daw daal di koy nangu jiwaat indi teg ndax du waruñoo def lenn loo xam ne ñoom dafay dem à l'encontre du Ousmane Sonko ndax ñoom éliminer ko dong la ñu bëgg kon nag duñu am benn élément bu leen di permettre ñoom ñu jëf ci lu ni mel waaye nag laaj bi samp nekk na lu ñu jaaxal ñun ñëpp mooy que la pour kan la ndax nag ki di Ousmane Sonko moom nekk na koo xam ne actuellement il est nekk itam koo xam ne ñëpp ko jox kaddu saa yi su waxee rek Sénégalais yi dañuy gëm la nga xam ne wax na ko ndax boobu ba tey ci loolu lañ ko xamee dëggu ak dëggal waaye itam saa su nekk discours am dafay nekk discours bu constant président Macky itam ñëpp gis nañ ne forcing mi ngi koy def ci réew mi ndax kii di Ousmane Sonko lépp loo xam ne dafa ñeel dossier boobu dox ci digganteem ak Adji saa daf koo setal lu jëm ci wàllum viol moom bu ñu xësee ba wax certificat médical xanaa kay wax ji jeex na match bi fin na waaye boobu ba tey ñu ngi ci topp ndax lenn rek lañ ci bëgg mooy am li ñuy woowee un procès moral maître El Hadj Diouf ñëpp gis nañ sortie bu mujj bi mu ne waaw bés buñ demee ci lu jëm ci wàllum procès di ngeen gis kii di Ousmane Sonko la nga xam ne yëpp def na ko di ngeen dégg lu ngeen musta dégg gis lu ngeen musta gis ce qui veut dire que ñoom ñi ngi préparé wu à ce que ñu jéem a kii di Ousmane Sonko jéem xool naka la ñuy def ngir tekk ay mbir yoo xam ne moom Ousmane Sonko daf koy yàqal ci lu jëm ci wàllum élection présidentielle yi di ñëw di atum 2024 seen yéene yëpp nekkul lenn lu dul kii di Ousmane Sonko ñu fexe koo faagaagal ba nga xam ne moom élection présidentielle yu atum 2024 day fekk sénégalais yi weddi nañ ko te dañ naan ki amul diine kii amul gëm-gëm kii taxaw di ñu xeexloo fii fekk ne yow def na lii ak lii waaye nag moom li ñu fàtte mooy que ne sénégalais yi talatuñ loolu lijjantiwuñu ko ndax ku ci nekk am nga sa vie privée sa vie privée boobu taxuñu ñu topp la ndax kenn ku ci nekk ci ñoom ñu nekk ci gouvernement bi tey bu ñu génnee la nga xam ne moom ngay def subaax ngoon bu dégg bëccëg dina am loo xam ne ci biir journée bi di nga lii kat bu ñu ko feeñal nañu ko nëbb ndax loolu nekk na loo xam ne bu ko ñëpp gisee nga daal di rus am gàccee waaye nag la ñuy toppee nit mooy na nga xam ne noonu lay jëriñee am réewam noonu lay servir am réewam te Ousmane Sonko nekk na ca biir fonction publique ba nam fay jugee gisuñu dërëm bu mu lekkal Sénégal ñoom buñ ko amoon tey kenn waxatu ko ndax exploité nañu ko kon nag nañu gëmloo sénégalais yi que ne lépp loo xam ne dafay nekk nekk na xam ne usmaan Sonko da cee bàyyi xel surtout ci lu jëm ci wàllum corruption ci lu jëm ci wàllum luubal alal loolee nag ñoom lañ waroon prôné à ce Sénégal gii ñu am leader bu mel ni Ousmane Sonko waaye nag li leen di déranger mooy ñoom dañoo jël alalum réew mi buñ sukkandikoo ci kàddu yi Sonko jël suñu am pétrole suñu gaz suñu zircon suñu or lépp daal di koy tayli tubaab yi di bañ nag am président boo xam ne bés bu ñëwee da leen di sonal ndax xam nañ ne Ousmane Sonko du leen may xaal qaala wala kasiran te bu boobaa nag dina nekk loo xam ne dina métti lool ci ñoom moo tax ñu tiit xam ne bés bu ñu jugee ko ci nguur gi Sonko mooy toog te bu boobaa dina leen indil problème kon nañ jéem a fexe ñu koy fagaagalee ba taxoon Serigne Bassirou Gueye engagé woon dossier bi ñeel Sonko ak aji Sarr suite bote ñeneen nekk di xeex ci suuf ku nekk di teg seen digg sërëx waaye boobu ba tey dara mënu gu cee sotti ndax len naa ko waral sénégalais yi ñoom ñoo bëgg changement yàlla xam seen yéene boobu nekk seen i biir xol ñu indi leen nag ku mel ni Ousmane Sonko ñu topp ko suivre ko fas yéene koo jàppale ngir am leneen loo xam ne moom mooy am ci Sénégal muy changement bu radical changement bu jaar yoon changement boo xam ne day ànd ak fulla fayda jom liggéey gëm sa bopp éthique déontologie am looy bañ itam te am itam looy bëggal sa population waaye bàyyi lépp loo xam ni da koy bëggal sa bopp mu nekk sa intérêt personnel. mbokki internet yi sa fa seetaan AGT news abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar ak i jàngat yu wér te wóor.